Jackson Jackson moo ñëwoon ginnaaw takk yu bëla ngeen ngeen di jag Hercule moo wan kanam wan ginnaaw ay supporteram Hercule moom timit wan ginnaaw ay supporteram Jackson moom timit wan ginnaaw ay supporteram at bi bu ngi nii ñoo ngay léewtoo ñaari mbër yi ci diggante Jackson ak Hercule Jackson moo ñu woon ginnaaw Hercule moo ñu kanam abi bi nee na da ngeen sori abi bi si benn ñoo ngay léewtoo bi ba jege si nañ. eey combat ba commencé na. lu ñëpp doon xaar a ngi noonu ñoo ngay leewtoo ci diggante Jackson ak Hercule seen sëriñ yi nañ seen supporters yi nañ seen waa koñ déggal foog <laughs> jël <laughs> mu toll nii ñoom ñaar rek des ci géew bi maa ngi lay fay sama doomu ndey. reporter baa ngay woyaan reporter baa ngay woyaan dégg nga lii reporter baa ngay woyaan abi bi nee na ngeen bëre abi bi nee na ngeen bëre ci diggante Jackson lewtoo bi yéex na ne ku fañ taxanaase ku fañ buñ taxanaase buntu am buntu bu amee ku nekk gis faay faay bu amee ak kii di Hercule écurie ñaari mbër yi ngi lewtoo arbitre bi waat waaw waaw arbitre dox na avertissement Jackson mu nekk deux avertissement Hercule daal di am benn lamp yi tàkk waa lamb bi tàkk na yéen a si des lamb bi leeral na mbëri kon bokk yéen tamit leeral leen seen supporter yéen la ñuy xaar sama kaamaa xarit ne na mbëri gaaw yaa ko wax <laughs> dama kay sosal eh déggal déggal ñeneen ñoo <laughs> wasaare ñëpp moom la ñuy waxtaanee <laughs> ñoo nii sama kawar bi xale automatique te garçon il est fort sama kawar ah, sama kawar bi xale automatique eh, eh, eh, dem na daal di delluwaat ñorul <laughs> bu leen ragalante waay eh bu dem leen sama kawar bi xale ay fangs <laughs> lii de xaw ma xel meeg si suuf Jackson xel meeg si suuf Jackson xel meeg si suuf day dem wala Hercule ngay xaar ndax bukki bi day jóg ñoo ngi bëre eh naa ne ko plaqué na ko daan na ko sab na trois appui daan na ko la ko xel meeg si suuf tàng mu lay wut ko daan na ko eh, Jackson ah waaye Jackson nu mu def nii xoolal ma si ba mi